may seen émission xalaat exactement 9h passé de 42 minutes yene ngi ci sen journal des faits divers di khalas yegg si waat nañ di len gërem ci and bi ngeen di ànd ak ñun euh, ci subak léegi ci suñu ay programme tambali khalas euh, mohammed ñi ngi lay ziar bu baax te di la nuyu ci suba ci jere jërëjëf Kalsa ma ngi lay delloo ziar gi bu baax ma ngi lay delloo nuyu gi ma ngi nuyu passe partout ma ngi nuyu également wa Sénégal yëpp fu ñu mën di nek nak ci ci ci aduna bi. jere jërëjëf mohammed naka nonu passe partout ziar na la. salam alaykum salaamaaleykum salam borom réew mi salaamaaleykum Sénégal alaykum ñep jërëjëf kontaan nañ euh, xam naa ni dañuy euh, rapidement tàmbali Mouhamed ak euh, partenaires yi gërëm leen ci gunge bi ñuy gunge. bokk na ci Optique Vision Plus Sénégal bokk na ci marque téléphone bii di Mion bokk na ci établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère ak ñeen di gàmmu vit fait bi. mais également ñi nga xamante ne ñi ñoo di waa Ecobank ak Express Cash. Mhm. comme nag euh, baat bi neexul moo tax duma ci mën a sori. <laughs> waaw jombul dinañu ko jéggal mais ñoom ñëpp sénégalais yi xam nañu bu baax a baax njëriñ li leen amal mu di partenaires yi ñuy àndal ci ci ci xalaas. Mhm. ak marque bi nga xam ne moo di moo di million. moo di jërëjëf ñu ngi leen di gërëm bu baax ñoom it ci gunge bi euh, bu dee xalaas express amul paas ñu doog dugg ci nag euh, xalaasu tay bi. express ñaar da am express. kon am naa waaw mooy xar yaa ngi ci réew mi gis naa leen de. <laughs> Ah, foo romb xar yaa ngi fi. xar yaa ngi fi de ñëw nañ de. ah ñëw nañ de moo Mohamed. xaw ma nag njëgi waaye ñëw nañ. déet loolu daal ndam xel xam nga lu metti hmm. Hmm. mooy nga yor xaalis te gisoo loo jënd. Hmm. mais comme am nga loo jënd problème bi mooy foo jëlee loo ko jënde waaw liñ ci mën a def mooy ne ku nekk doxe ak sa doole. maanaam ku nekk li la yàlla war sa gële nga jëlee noonu say bëgg-bëgg nga yamale ko foofu ah, bu la leera ne daal yow quatre-vingt mille moo nekk sa poos hmm. boo demee ci daral di jënd xar hmm. laajal fu xari quatre-vingt mille ya nekk boo bëggul xar bu ndaw nag ah euh, loolu nag da maanaam nit nag aussi da ngay xam sa doole yam nag ah. nga yamale ko fa bëggoo xar mu ndaw ah, waaw da ngay wuti lu rëy. xam nga tamit yow suba teel nii ñëpp yow xale yi di sang xar yi da ngaa bëgg xar bu kii tamit moom it. <laughs> nga sangee ko ci salle de bain bi. <laughs> foofu concours am na fa waaw quatre vingt mille waaw <laughs> euh, hmm. ñu fi doon may ay quatre vingt mille quatre vingt mille. quatre vingt cinq mille waaw quatre vingt cinq mille xam ñoo xam te ne boobu ba ñu ngi may woo. naan dañ leen a woo jël seen filiation pour yónnee leen quatre vingt mille ba tey jotuñu. ne leen doo njiitu réew mi.

mooy du ñu bëgg suñu alal di fës. Mhm. waaw boo demee am na ñu encaissé seen quatre-vingt mille tëdd ci ba pare taxaw naan kenn yónneegu ma. bañ ku leen ci laaj wàll. kay waaye loolu it da nga koy bàyyi xel nag. jaay quatre-vingt mille ku ci laaj wàll. quatre-vingt mille am na ñoo xam ne vingt mille sax dañ naan la genre. Aliou Ba yónnee ma quatre-vingt mille fi nga toog nga xool ndax na ma laaj yónnee ma nga <laughs> yow de Aliou Ba boo ma mayoon vingt mille léegi su ma mu ne sama wàll. Ndiaye borom moto bu ñu waaw bi fi bi fi jaaroon barki dem mhm. dafa eggul mooy maa ngi gis gars yi doon ko laaj dem xam nga dem ñu ngi woon ci affaire Dubaay bi nañ ci ñëw après. waaw mooy ki nga xamante ne jii motum dafa paan. waaw mu yóbbu ko ci benn mécanicien. mu ngoog mécanicien bi war ko koo defaral. waaw wax ko ne ko dafa am lu manqué waa ji jox ko xaalis pour mu dem jëndi ko. waaw waa ji bricolé moto bi moto bi mën a tàkk mu ne ko maa ngi dem pour jëndi pièce bi. waaw dem yoonam ba léegi ñëwaatul. ba léegi ñëwul mais waa ji waxuñu woon ban genre moto la. waaw waxuñu woon xamuñu woon suite bi daal. yónnee na ma ko moto benn X8 la. Mhm. X8 Evo yaakaar naa matricule AA 252 EL. ba léegi moto bi. ba léegi nii ñëwagul ba nii mi ngi Sénégal. matricule mom taxul mu feñ gars dañuy futti moto bi ñu déglu. dama amone problème ak ben mécanicien dimanche le 5 juin bi passé dama jóge sama kër don dem police jëppal ñëw ba ci buntu police bi garé sama moto dugg ci bi police bi ma génnaat ba ma génnee pour démarrer sama moto far courant bi daw nak courant bi ñewul après bon

moto dafa am problème contacteur moo tax sa courant bi du ñëw boo contacté courant bi du ñëw ma ne ko bon la moo ciy pexe mu ne ma ins bi munu comme que tey dimanche la munuma am contacteur léegi dama lay génne ñaari fiir defal la ko direct bu ko defee le lendemain su ma amee contacteur dinaa la woo nga ñëw ma changer la sa contacteur mu defal ma ñaari mu génneel ma ñaari fil ma koy directé noonu di ko taalee noonu suma moto pare ma fay ko ma laaj ko main d'œuvre bi ñaata la mu wax ma mille ma génnee mille fay ko ma ñibbi tranquillement sama kër le lendemain nag déggante wuñu lundi passé mardi mercredi ba jeudi jeudi 16 heures mu woo ma téléphone ne ma am naa contacteur ñëwal ma changé la ko ma ne ko damaa nekk sama bureau wàcc gu ma 17 heures laay wàcc mu ne ma kon boo wàccee 17 heures ñëwal ma changé la contacteur bi man tam ma def noonu ba ma 17 heures ma dem jóge sama bureau dem ba rompay liberté 5 ñëw gaare fekk waa atelier bi ñëpp toog patron ak yeneen ouvrier ñëpp toog mu nuyoo laajte franc fekk ko foofu mu toog mu ne ma booy maa ngi ni doon xaar yor nga 5000 yi pour contacteur ne ko mu 5000 jox ko mu ne ma day dem jëndi contacteur pour ñoo changel ma ko ba mu taalee sama moto ak fil yooyu mu génne loon def ko direct dem ca laa ko gëj gis ba tey jii may wax ak yéen man ak ouvrier yi nekkoon ci atelier bi ak patron fa la ñu toog ñoom sax fa lañ ma bàyyi ñoom ñëpp ñu taal seen moto dem wari ko ñoom ñu wër ko ba vingt une heure dix huit ba vingt une heure gisuñu ko ñoo fekkaat ma ci place ne ma ñun te fépp fu ñu xalaat ne dafay fréquenté dem nañu fa seeti ko mais gisuñu ko noonu laa ñibbee patron sax yóbbu na ma ba fi mu dëkk ñu dem fa laaj seen waa kër seen waa kër nañu xamal nu carrément franc de ça fait un mois ñoom teguñu ko bët ñoom dañoo tegoon ne sax franc mu ngi Saint-Louis parce que foofu lañ ko doon dégg noonu ma ànd ak patron bi tamit patron bi déposé ma sama kër ak motom ñibbi ma ne ko de toutes les man suba dinaa leen may ba douze heures parce que peut-être ndogal mën na ko dal mu paan ak moto bi wala dara dal ko bon man fa laa doon xalaatee ma ne ko suba xëy na peut-être guddi gi mun na guddee ñëw bu ñëwee daal ba suba na ngeen ma informer mu ne ma amul benn problème le lendemain ma xëy dem liggéey ba douze heures dégguma leen aw ma benn nouvelle ma woo patron am téléphone mu ne ma ñun de ba léegi amuñu benn nouvelle ci franc gisuñu ko dégguñu ko fenn ma ne ko bon laa damay dem police ma def sama ma sama plainte ci laa demee police yu jëppal expliquer leen cas bi déposer ko sama plainte franc franc mu ngi dëkk bi daal di wër kii bi affaire moto bi. waaw man de franc tant que jotaguñ ko bon mun joxe ma ci sama xalaat. li mu wax à la fin aussi am na solo hein. est-ce que ndogal dalu ko ci yoon hmm. bi agressé wuñu ko y a des questions à se poser à hein, Mohamed pour moi. Ah, mais li ma jaaxal mooy mën na nekk de lol non. Hmm. mais dire bek ni mu yàgg. Hmm. bu doon dañ ko agressé. même ñaanu ma ko même su dee woon sax. dinañ ci am ay nouvelles. mën naa nekk nag. dëgg mën naa nekk. dem na seen kër aussi seen waa kër ne un mois gisuñu ko. ah déjà beneen a ngi noonu mais par contre li mu mujjee wax aussi. Hmm. loolu moom képp ku yor moto. Hmm. wala oto lu mu ci mën di doon rek bu ñu ko sàccee li nga war a njëkk a def mooy demal nga déclarer ji ko. Hmm. parce que gars yi dañuy sàcc moto def ci ñaawteef. Ah, ah. bu ñu leen jàppee wala ñu jàpp moto bi borom moto bi dañuy dem jëli. balay loolu lépp dina ci fekk nag. muy sa carte d'identité muy sa oto ñu ci mën di doon lu ñu la jëlal bu weesoo wër bi nga koy wër ci rajo yeeg ci kii mhm. li ngay njëkk a def mooy dem déclarer ji ko protéger sa bopp exactement protéger sa bopp mais également dina tax sax buñ ko jàppee ci ay patrouille wala circonstance bu mu mën di doon ñu mën laa borom moto wala yow borom matériel bi mhm. ne la say bagage a ngi nii loolu nag nañ ko nañ koy bàyyi xel bu baax ku ci am xibaar daal mën nañu woo ci 77 150 17 17 aja fuñ jëm Ndiaye tudd na sànq sama gars yi waa police bu jëppal maa ngi leen di nuyu bu baax ndeysaan ñu baax nuyul commissaire. commissaire Sow waaw. fu ñu jëm. Ndiaye. Mhm. Dubaay. Ah, waaw dañuy jël Ndiaye borom 90 millions yi. Mhm. ñoom dañoo préparé woon seen deal. Ndiaye ku ci moytuwul seetkat yii ak sëriñu tariyàq yii di ñoo dugg ci musiba mbaa bu kumba. Hmm. waaw ñoom dañ koo préparé woon wut seen benn seetkat. neen yooyu yaay mu seetal leen neen yoon bi baax na xaalis bi daal daf leen ci nangam ak nangam ak nangam sëriñ ba tam wax leen la même chose ba génne loon ay sarax. sëriñ bi ay audio ma ñoo ngi ak moom cercle ba tamit noonu ak seen tur ak seen numéro te dil wala ñu bokkoon waaye ba affaire demee ba kalaate mhm. sëriñ ba lañ ko joxoon da koo delloo sëriñ bi fu mu nekk fii wala Dubaay Dubaay di fa tar yàq foofu waaye cercle bi ñu fii Sénégal léegi nag ñoom ñaan nag bi ñuy préparé dil bi lañ doon wax ak nañ ko nasee mhm. sama bi ziar naa la nag ay tey ma amoon overtime wala ñaari waxtu xam nga gars yi comme dañuy teel a wàcc yenn saa yi gars yi loolu du leen bi maanaam mbir mi moom ku ci dugg moom bu yëpp nga dugg ci bu jeex tak parce que dafa nekk loo xamante ne risqué la quoi waaw risqué la ndax mën naa la wax ne daa nekk sa benn tànk mu ngi ci biti sa benn baa ngi kaso waaw parce que gars yi moom faw nga tëj seen lamiñ fu assuré nga koy tëjit waaw da ko teg fu leer moom moom Omar moom dañ ko koy teel wax parce que problème bi mooy gars yi moom fekkee ne moom maanaam euh, tëjoo seen lamiñ moom bu ñu may la temps dañ lay porte plainte moom au niveau international su boobaa moom voilà pour nga génn ci du yomb moo tax moom faw nga tej seen lamiñ boo xamante ne moom nem la ñuy def waaw nam ñuy def parce que comme dañuy jëflante ay tubaab ak yu dañu am connaissance quoi dañu am connaissance bi moo tax man maa ñëw nii man de xanaa vol bi laa xawtit ndax dinañ am ne leer nañu dinañ am vol ci suba ay dix heures midi yooyu foofu baax na ak liñ ci war a jël taxul mu bari lool lool lool ba tey baax na quoi waaw parce que cinq cent yi moom xaw na bari tuuti quoi damaa xam nag li nga war a jot suba te it aussi comme ni nga wax dëgg la cinq mille bi moom en tout cas maara bi moom na ma baax weex rek balaa ngaa dem génne lu weex ñu ne na amul jafe-jafe quoi waaw bi leer na quoi paa bi tam yónnee woon naa ko message ni waaw dama xamul nag parce que bu dee léegi-léegi dina compliqué léegi-léegi dina xaw a compliqué ci yow parce que billet bi xam nga voilà billet xaw na compliqué léegi bu fekkoon ne da ngaa mën a nekk ak moom sax bu suba nga mën a suba guddi gi mën nga jóg mais bu dee léegi-léegi nii moom bu billet bu fekkee ne mënoo jëndaat billet léegi léegi léegi jooni jooni dina ko déet yow fan nga ne da ñëw sëñ bi da ngay ñëw da ngay bàyyi li ngay def nga ñëw parce que fi mu ne maa ngi ko yor te fi mu dama ko war a verser fi mu wax ci arrangé wu ko rek da ngay ñëw taxaw ñu def lu ñuy def ñu def comme yàgg nañuy wax whatsapp whatsapp bi dafa du sottil dara fan nga ne da ngay ñëw ñu taxaw ñu wax ñu xool lu ñu def taf taf parce que mu ngi bëgg ñuy tardeel yow fan nga ne Ibrahima nañu mu gaawaay parce que même bu suba bi sax moo la bu suba bi moo ëpp bu suba bi sept cent mille la boobu moo ëpp man fi mu ne nii damay mille xam naa lii bu dee génn naa bu suba bi sept cent mille la boobu ëpp fuuf sax Ibrahima siyaar naka mu danañ si jaam alhamdulilah macha allah dégg naa ko ah xaw na compliqué de tax xam naa ne léegi lu ñuy de parce que leneen li moom suba ci suba laa koy jot suba 9h damaa xamul nag ndax dañuy xaar boobu suba 9h jël boobu dem parce que xam nga bii comme suñu séjour xamoo ñaata fan gay def yóbbu yenn xaalis yi moom mooy loolu fi mu ne ni envoyé na ma sax ki ma war a jox xaalis bi dèjà damaa xamul ndax dañuy xaar bu suba bi ñu jël boobu dem wala Ibrahima Ibrahima te ñoo takk jóg rek wala te baax na nañ dem parce que fi mu nekk nii te mu ngi laajaale cinq mille boobu pour ma teg ko ci. ne moom bu ñu mënoon jóg te du am problème ñu jóg ànd ak moom dem ma am lu ma lan laa koy laaj nag waaye suñu mënoon jóg nii ñu jóg ànd ak moom dem. dégg nga bu lii seen discussion la bi ñuy waajal dil bi. te dil wala. bu ñu wàcc aéroport nee nañ coppet nag. xam nga luy nax gars yi mooy dañuy leen ne way communication whatsapp moo gën a sûr. Mm-hmm. mais moo gën a gaaw pour weeru. parce que dañ enregistré yooyu ci gën a tuuti sax. moo gën a gaaw pour weeru. kon de man yi may wax whatsapp naa ko wàññi hmm? yi ma doon wax whatsapp naa ko wàññi. ah wala ngay whatsapp di wóor rek. fu jëm. Ndiaye. Hmm? waa ji tileen la taxaw gaare otoom sûreté tëj dugg ci marché bi génn fekk ñu tijji oto bi. gaay bi ramassé la ca saag ba yëpp la ca oto ba yëpp. waaye xaalis amu ci woon. xaalis ak ay téléphone ak parce que moom ci ay téléphone lay liggéey. waaw mais problème mooy da koo suréte ba oto bi signalé wu tëju na. gaa yi ubbi yóbbu. ci marché bi. ñu déglu déglu. pour lancer benn appel. conducteur oto yi euh, démb dama gaare woon buntu marché ti leen doon am lu ma doon jënd euh, bi ma génnee bi may vérifier sama oto ndekete dafa am ku taxawee ci beneen euh, côté droite bi xam naa dafa bàyyi ba ma vérifier ba may vérifier rek mu téye porte bi mu ubbi porte bi téye ko prêté ma si attention que bi may gaare maa ngi maa ngi damaa gaare ba pare bi may wane ginnaaw toujours laay laay laay vérifier vérifier naa ba télé ba oto bi sonné ma ni naa mais même bu fekkee da ngaa verrouillé même bu sonee bu fekkee benn port bi da nga kaa tijj même bu sonee da jàpp ni au fait verrouillé na. donc bi ma génnee dem jënd li may jënd bi ma dëppaatee laa fekk mu yóbbu lépp lépp li nekkoon ci biir oto bi sama saak bu defoon ay téléphone parce que man ci téléphone laay liggéey sama xaalis bi ma tegoon ci table de bord euh, mu yóbbu ko ak benn téléphone bu nekkoon ci table de bord bi tamit mu yóbbu ko ak saak bi. saak bi tamit ay téléphone la defoon ay téléphone la defoon estimé gu ma exact ñaata la nekk ci xaalis mi ngi noonu daal may lancé appel ñi nga xam ne nii dañuy gaare seen oto parce que def nañ ko tamit sama benn voisin xaw ma woon sax ni def nañ ko ko parce que bi ma demee di ko wax euh, sama fournisseur bi nekk ci euh, sama koñ la mel ni sa voisin bi dañ ko ko def il y a deux deux jours avant dégg naa moom tamit euh, Medina la gaare ci wetu poste Medina bi dugg ci banque bi bi muy dugg ci banque bi tamit xam naa même chose lañ ko def rek dañoo ubbi otoom daajiwuñ ko defuñ dara même chose lañ ko def dañoo ubbi otoom jël saagam saagam tamit amoon na xaalis bëri ak ay papiers yëpp moom du sénégalais déjà donc loolu lañ jël ak ay bagages am yi nekkoon ci oto bi may lancer appel daal yéen ñi nga xam ne ni ay conducteur ngeen ngeen veiller ci euh, loolu quoi parce que man boo sa fait presque dix ans may dawal wala plus mais mosuñu ma koo def daanaa dégg nag jaaro kii yooyu noonu mais xam nga jour boo waree daanu rek cuune ngay nekk parfois da ngay booy verrouiller sa oto da ngay jékki saa rek verrouiller rek wala da ngay dégg ni klaxon bi kii na rek wala nga verrouiller xëcc sa porte peut-être euh, dem quoi mais am na nga xam ne doo ci prêter attention.